kii di seex ma may la ko nga sëyal ko te boo ko defee doo ko réccu mukk je m'appelle Ndeye Assou Sow alias Choupa donc je suis nouvelle ci série moo ko pocc maa ngi euh, incarné rôle Kumba mu ndaw laa ci tudd donc sama rôle mooy pour ma jël Cheikh indi ko ci man kenn werantewul ni Cheikh góor bu dur la métti na nag du yomb mais dinaa jéem def euh, ak samay façon ak samay astuce jonge affaire yooyu noonu pour jéem koo récupérer indi ko ci man pour mu bëgg ma daal parce que jamono ci loolu rek laay wër pour Cheikh bëgg ma ah xam nga Binta maa gën a nekk jeune maa ko gën a jonge man samay facette ak samay fem sama dégagement rek defe naa war na koo mun a wane donc ku nekk la ak fi nga mënee te man xam naa ni moom mën naa Los Angeles mu si mënee naa Sénégal tey bu choco choco ñëwee ma choco choco ba mu neex bu jongee ñëwee ma ñëw def tay baas taajal ko añ defaral ko ba mu baax Cheikh dafa bëgg ko toppatoo xam naa ni mën naa ko. jeunesse moo tax ñu naan jonge mais des fois moo ko pooj nañu wax donc foog moom moo ko pooj moo ko pooj boo ko déggee mën nañu entendre moo jonge donc du jonge kese parce que Cheikh instant bi dina difficile pour nga kiiwaat ko mais wax wax bu neex. diko diko di muñ tamit parce que c'est pas parce que dina jafe quoi parce que cheikh dina jafe tey ji pour ma amat ko comme cheikh bu ñëk ba dina metti mais yalla baxna ak samay fem je sais que dina ko nangu dina muñ na melni bay Baye Fall ci kërëm <laughs> man defe naa sama sourire rek fem la cheikh bu ñëwé ñangal ma sourire ko ah tamit nak baña bari na bagage adina dara dama fay parce que Binta ñëpp xamee nañ ko moo ko donc man damay ñëw gën ko moo ko avec la jeunesse parce que bu buñ ko waxee rek euh, loolu xam na génération bi peut-être moo gën a jonge bee ñee dañoo xaw a yàgg tuuti ay cuuraay ak ay yooyu daal dañu gëm ay yëfu bàjjen ak yëfu maam mais man damay ñëw indi samay samay femme indi samay traiteur ah di indi di néew chandelle def la sama jëkkër yu baax góor daal nen ne tuuti la dañ koy na be di ko topp tabe bu oh, baax daal